Euh, nous sommes euh, très heureux euh, de célébrer une tradition de notre mouvement politique, Louis Jot Jotna, mouvement citoyen panafricain, de venir à Touba dans le cadre du Grand Magal pour rendre hommage à un grand fils du Sénégal, un grand chef érudit, un waliou exceptionnel, salué par toute la Oumma islamique, Euh, qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Ce qu'il a fait pour l'islam, ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour le Sénégal est tout à fait exceptionnel. Et tout fils du Sénégal, toute fille du Sénégal doit être honorée, doit être heureux d'être associé à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et venir ici lui rendre hommage et participer euh, à la célébration de son œuvre, de tout ce qu'il a fait pour la Oumma. Il nous a représentés partout et avec dignité. et nous a représenté comme l'homme le plus érudit de son époque et de sa génération, qui a écrit, qui a laissé ici des, des, des ouvrages euh, qui rendent hommage euh, à notre Seigneur, qui rendent hommage à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous mettez tout ça ensemble, comme je dis, tout fils du Sénégal, toute fille du Sénégal, digne de ce nom, et même de l'Afrique, euh, doit rendre hommage à Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul. Nous avons été reçus par le Khalif général. euh, qui est, euh, comme on dit en Wolof, un, un parent, c'est-à-dire un Weijour, euh, que nous aimons énormément, nous l'avons toujours dit aux Sénégalais, euh, même avant qu'il ne soit euh, officiellement le calife général et qu'il euh, représente Serigne Touba, nous avions eu une relation lui, son frère qui était ancien ambassadeur Idrissa euh, Mbake et sa famille, Sokhna Bali Mbake, euh, nous avons toujours une relation exceptionnelle. Euh, c'est un Khalif général qui a réconcilié les Sénégalais par son attitude. Et dans le cœur des Sénégalais, de tous les Sénégalais, vous trouverez euh, Serigne euh, Muntaha Bassirou. Parce que c'est lui, un homme d'une dimension exceptionnelle. Vous avez vu les prières qu'il a formulées pour nous en nous disant que euh, nous n'avons, nous vous avons jamais oublié, nous vous avons dans le cœur et nous prions toujours pour vous. Et je lui ai dit, que je sais qu'il prie pour le Sénégal chaque jour, chaque heure. Mais nous lui demandons de rajouter encore des prières parce qu'on a vu un spectacle désolant il y a deux jours ici au Sénégal sur la scène politique et que lui, il a l'autorité morale. Il a l'autorité morale de dire à la classe politique sénégalaise euh, le Sénégal ne vous appartient pas. Il appartient à tous les Sénégalais. Arrêtez de vous comporter d'une certaine manière, surtout d'une manière indigne des valeurs que Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Oumar Foutiyou Maodo Malick Cheikh euh, Ibrahima Niass Limamou Laye Boukounta c'est ce que ces érudits ont ont laissé ici au Sénégal aucun homme politique n'a le droit de venir se comporter de façon irresponsable indigne insultant à gauche et à droite euh, euh, montrant au monde entier que le Sénégal a changé. Le Sénégal n'a pas changé dans la bonne direction avec ce genre de comportement. Donc il était important pour nous de le rappeler au calife général en souhaitant qu'il, si son temps le lui permet, qu'il regarde ces scènes qu a, que nous avons tous vues et qui que qu'aujourd'hui beaucoup de Sénégalais baissent les yeux quand on parle de notre pays. Donc voilà un peu ce qu'il m'a dit, qu'il me remercie de lui avoir part de cette préoccupation et qu'il fera ce qu'il a à faire. Donc Mboki, euh, nous sommes ici à Touba. <coughs> Euh, barkeelu ci bés bu tedd bi di màggalu Touba euh, bépp doomu Sénégal bu xam boppam bu gëm boppam xam nga ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li mu liggéeyal Sénégal ak li mu liggéeyal Afrique euh, kenn amu ci werante ñëpp ko naw jox ko cër bi ñu ko war a jox moo tax bésam bu jotee bépp doomu Sénégal fu mu mënti toll ci àdduna bu ko mënee dafay ñëw fii ba Touba rendre ko hommage daje ak ki ko fi toogal tey kii sëñ Touba tey fii. di Sénégal di sëñ Mountakha Mbacké euh, Mountakha Bassirou Mbacké ñëw ci moom ziar ko moom la ñu def man nag maag moom dañu yàgg am relation ma teg ko way jur def ko nit ku baax koo xam ne euh, conseiller spirituel boo xam ne boo ko gisee wax naa ko naa ko yow ñëw ziar xool la rek leeraay bi génn ci yow rek doy na doy na sëkk nit ku fi jógee xam ne am na lu mu yóbbaale donc ñun dañu bëggoon nga ñaanal ñu te nga continuer ñaanal réew mi parce que xam nañu yaa ngi ñaanal réew mi mais réew mi keroog am na fi ay événement yu fi am ñaari fan ci ginnaaw ñetti fan ci ginnaaw tax dañoo rus parce que Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Oumar Foutiyou Maodo li mu Laye Boukounta bu Ndiassane Cheikh Ibrahima Niass ba ci ñoom monseigneur Thiandoum premier cardinal africain li ñu defal Sénégal ak li ñu fi bàyyi ci valeur li ñu gis keroog assemblée loolu du Sénégal du Sénégal bi ñu bëgg Sénégal bi ñu xam du Sénégal bi ñu bëgg tabax ma ne ko nag moom yàlla may na ko autorité morale may na ko autorité spirituelle pour mu yedd sénégalais yi mu yedd la classe politique fàttali leen ne moomuñu Sénégal dañ cee bokk rek te nañu respecté sénégalais yi donc vraiment loolu laa bëggoon wax di leen sant di